booy nag intellectuellement maa ngi doog a sa ce soir. Hmm. non il faut me respecter parce que xam nga nit ñi dañu yaakaar ni politique ah mooy ne ci mbedd mi di wax ne ci internet bi di wax ne ci ci fu ne nga bëgg fa nekk di wax waxi ñàkk fa da ngay dem ba mujj sax ay waxi ñàkk faay da ngay wax. Hmm. te y a des hommes yoo xamante ni c'est des hommes de l'ombre mooy sa genre gii ay intellectuels yoo xam ne ñooy organiser lépp waaye duñ feeñ te ñu ngi ci politique bi nekk ay nit yu respect yoo xam dañ leen a jox respect. ay nit yoo xamante ni dañoo am dignité mais yow si genre boobu nga bokk. Hmm. moo tax bi ma dégg bi ma bi ma waxee ni yow ce soit loolu la ma ne il faut il faut le faire. Hmm. il faut essayer parce que booy bi tamit intellectuel la te y a des exemples yoo xam ci réew mi dañ leen war a dañ leen war a di di di di rappeler xale yi fi ne ay yu mel ni ay keebaa mbay toog nañ Sénégal waaye déggoo leen ci wax ju ñaaw. Hmm. Moustapha wax ju Moustapha wax ju dëng. dégg nga Kéba Mbaye il a fait dégg nga borom xam-xam bu jubal teg ci yoon. réew mi dañoo soxla ñu mel noonu. genre yooyu dafa war a am mais c'est dommage. c'est dommage c'est dommage beneen bi ci gën a garaaw mooy di ne nit ñi dañoo yaakaar tamit euh, euh, maanaam gouvernement bu fi jógee rek da nga war a ñëw fomp ña nekkoon ca ca boobu yëpp indi ay nit yu bees da ngay tàddee réew mi. Ah, fonctionnaire fonctionnaire la moom yoonam nekkul ci état li muy def moom dañ koy liggéey loo muy liggéey bu keneen ñëwee tam na leen mettre en place rek circuit bi continuer waaye bu la falee ministre nga ñëw dindi ña nekkoon ca ministère ba yépp ñu commencé at à zéro kay yëf ya jaxasoo dëkk bi day taxaw mais vraiment yow bi ma déggee nga expliqué moom ma sama sama xel intellectuel ñëw ma ni booy bi intellectuel la. say xool nag wax ji nga wax. wax ji nga wax ni. dëgg yàlla xalaatuma ko woon. ah non je n'ai je n'ai jamais de tels propos sérieusement parlant mosuma woon xalaat ni mais venant de toi quoi en fait. waaw mosuma woon xalaat ni di nga wax lu mel nii. parce que li nga wax nii dañ koo soxla lañ soxla ci réew. ñuy liggéey mhm. kenn du leen gis kenn du leen dégg mhm. ñu ne ci ginnaaw di liggéey liggéey bi yëpp ñu nit ñi di mbebele la ci kaw yow man tey maa la maa la amee reer dama bëgg waxal li nga bëgg reere ma wax soxna si mu defar ko nga reer yaa xam bifteck nga bëgg hmm? nga bëgg bu la neex mhm. hmm? yaa xam émincé de filet de bœuf accompagné de la sauce fromagère yaa xam souris d'agneau l'essentiel choisi souris souris du kaña non suri dañoo xar <laughs> añoo xar ah, ah, <laughs> jàngoon naa ci école. un un rat. non bokkul suri. la ñay non du benn. <laughs> suri euh, beneen bi mooy dafa am leneen lu am importance. Hmm. Euh, instant bi dañoo bëggoon jaay xam nga jaayum carte bi dañ ci war a nekk. carte de membre seen parti. dañ cee war a nekk. carte de bi. jaayum carte bi rek waaw. Ah, léegi nag comme yow sa équipe bi sa sa bi am na ay ay nit. dañu bëggoon yow noonu fexe wutale ay carte d'identité yoo xamante ni foofu nañ ah. ci mën a. <laughs> <laughs> da ngeen di def ah, bi nit ña fa nekk nga wutal jox ma seen carte d'identité ñu def lañ ci parrainage. yow da nga réew. ku réew. yow da nga réew. <laughs> waaye bu ma laaj la benn affaire yow man nga bu bu na ne ngént li neex la ngeen dëj baa ko dàq. man dëj baa ngént naa fi yoxe yow sa morom nga naan may da nga réew. waaw ak man naan ay xaw ma damay def ay parrainage. jëlal sa carte d'identité employé nga jox ma boo ko mënul nga ne mënu ma ko rek. waaye dama ko deful ba pare dama teg ci. boo ma insulté boo génnee ma defaral la bagage yow bagage mooy nepp. def ma ko def fii ba pare tapas tapas tapas nocturne la. d'habitude sa papa day naan boo ma waxee lii maa la wax lu ma neex gis nga lii boo dugg ci sama salon bi di ma wax affaire yi je te casse la gueule. yow ma casse sa gueule yow indécent la yow. man sax dama dul wax yow lay indécent kas sa gueule yow. mooy voleur. yow yaay voleur yow. trafiqué ay personnes yow yaay voleur yow. Hmm? pédophile yéen yéen ay identité jàmbur ngeen jël ko di ko bind ci ay liste. xoolal loolu ci parrainage. mais bu leen ni nga wóolul wóolawul la. lu ngeen di sàccee ay parrainage. yow da nga sàcce ba toog fi nga toog. yow da nga sàcce ba toog nekk voleur. yaa ñu ko nekk voleur yow. yaa ñu ko nekk voleur yow. waaw da nga réew ba nga dof mais boo génnee fii di nga xam man maa la gën a réew baraama indécent yaa ma gën a indécent yow. sama salon lu fa yàq. sa salon lépp lépp looy def ci biti def ko fii mën na ko fay def nga naa ay. defar kon nag naa la rey fii ñu tëj ma ni ma da nga tapage tapage nocturne na man. génnal ñu dem ci mbedd mi. dara kàmb la. ay dama dama baa ngi nii di leer. yow man yow yow sa soxor gi. bokkuma ak jeunes yooyu ne fi nga am ay non je suis une autorité wala responsable man paa bu dof dof lu sama kanam dof dof dama lay faj ba nga nooy. man booy bu dof dof sama kanam dama lay tëral ba nga tëdd man yow day topp day tàppel rek toog sa séese yi di wax. su ma génn. <laughs> bu yaa am sens. ni nga jógee nii sa xel dafa dem sama maam sa sa maam yow nekkoon ku baax mais ni nga jógee nii billaahi bu dul woon fii ma taxaw nii. <laughs> génn. toog na toog ba ma toppee nga xam ne maa la gën a indécent yow. yow nga ne sax may def. yow ay jooy nga ma defee booy. waaye excellence <laughs> la gëj a gis. ah man kay man bés waay foo man maa ngi ci dëkk bi. ah man gëj ñu ñoo gisante. mais boo dama voyagé woon nag. ah waaw maa ngi woon maa ngi woon Abu Dhabi. ah Abu Dhabi Abu Dhabi xam nga temps yi fa lañ ma fa lañ ma fa lañ ma yóbbu fa lañ ma affecté. wax nga dëgg Abu Dhabi mais yow dama la gën a gis. <laughs> maa ngi nii tey sa à côté. <laughs> keroog maa ngi dem championnat bu Norvège. Norvège ñu ma lay laaj. ana Maymunal Abdi. Maymunal Abdi mu ngi fa mooy jabar ji ji jëkkër ji. jëkkër ji Maymunal Abdi. <laughs> waaye nag yow yow da ngaa garaaw nag de. xam nga yow xam nga yow naare dañ laa bëgg. naa président président Mauritanie bi xam nga yaa ngi koy fàttaliku. Mohamed El Afsa Mohamed El Afsa jabar ja jabar ja jabar ja da lay laajte. jabar ja kii Maymuna Zabi Maymuna Zabi. Zabi da lay laajte <laughs> kii man sama waa ji. Zabi fa la ray xam ne fa la ray wa lu mu ko daan dugalee sax ca waay wa. <laughs> buñ ma saane wax daan wala kinna dawaan wala rayxaana bila xadra jëleli wa xadriya maxduudi maxduudi bi roy bi ni wara yaaruuna ay daal yaa solo loon naar yi daal mais nag mais namu naa la maa ngi nii mbaa yaa ngi am mais taa da ngaa am tee xam nga rek fan yi damaa changé da ngay changé xanaa daan nga gis ay dinosaure te xaw ma yooyu dinosaure yaa nga tey maama naar mais ci loo nekk nag yaa ngi doxal maa ngi nii man daal maa ngi nii yaa ngi nii maa ngi nii nekk ci dëkk bi xam nga di dem ak a ñëw ak a dugg samay action ak yooyu noonu jàppal daal ni nga def baax na de def neneen xam nga xoolal waaye nit ma naa rëcc fu ne waaye na ñëw Sénégal jeex na tak Sénégal daal base la jeex na mais mën ngay rëcci tukki dama ni waaw jom mooy tukki waaye fu lay ñibbi moo tax ma ñëw waaye nag damaa dikk waaw ndax dafa am lu ma tax a jóg lu la tax a jóg Ndeye Ndiaye waaw maa wóolu ba ma ñëw liir sama CV mu ñor ko ah. mu ni ma dama laa bëgg def sama directeur campagne mën nga ko. nee naa ko nag école nationale d'administration laa génnee. maa mën nga ko. waaw dama bokk ci lii au cadre de ce pays kon mën naa ko diriger jàppale ko mu jël réew mi. lii mu la jox damaa xam ne danga ko attan. ah gis nga loolu. xam nga poids sëf ko ku ko attan. waaw mais yow attan nga ko. Mhm. ndax kii. Mm. jëri ngoonee maamam. jëri ngoonee men. kii. Ah. la jor joobay maamam. kii surtout sa Fatma xawar la. xeer xeer Fatma. xeer Fatma mooy maamam. kii mën nga ci lone lépp loo xamante ni ci bàkk am nga ko wala ah. loo xamante ni njaajaan njaay sax laal ko ca man daal naa ko wax lépp ba mu def yaa xanaa juboo nañu. juboo yaa yàlla rek lu dul dégg. bu bu ko wax yaa yàlla nag. Oh, déedéet du ma ko wax parce que xel mi daa yaatu. déedéet déedéet du ma ko wax. tey ku changé jeex na jeex na jeex na. <laughs> <laughs> Eh! a kontaan. loo xam ko ko. dama ko dama ko koy wax na sa xol sedd. li eh! ma xol ban way nga ma koy joxal ban way. <laughs> la ngaa bëgg Mauritanie daal Mauritanie rek. tey maama naa. ay ci kanam. jaajëfet maama naa lée adduna di bu koo gëj gis booy wax di ko gis aka dégg géwél yi naar ya kii mu dugg nii nday ndaay neexu la nga man sama mbir man samay ko nëbb sama dëgg duma ko nëbb am na fu ma ma gisee booy wax yi may def ni di ma joxoon ah! wax naa la ko nag waxal sa dama ne la man sama dëgg du ma ko nëbb as yow nga gis li xew ci kër gi public bi ma wuy mbooloo mi ma wuy si dëkk bi ku ne daan day njaay day njaay day saa yi bu ma fi wootee rencontre nga daw bëgg a fekke pour lan la yow ak fi ma la teg xam nga lu ma bëgg nga génn ci li nga ne ba set wicc yow nag foogoon naa nit kese nga waaye nit dara nga dañ lay dañ lay influencé di la dëbbu di la def loo naan la fii ngay aw ngay nga fay aw yow war ngaa nangu xadi baaba mi naan la bul dugg ci ci politique gu ndey njaay ngay bañ yow nit ak dara nga ma waaw nit ak dara nga nit ak leneen nga ah waaw banaa la nag banaa la décidé woon naa ne damay wax nànk dox nànk mais mënu ma ko faaw ma taxaw wax ak yow asut ku ne waroon na maa mën a xeex ba mu des yow. waa Ndeye Ndiaye yow man maa la xeex. waaw Ndeye nag yow ku réew nga ku ma yab nga. Ah, Ndeye Ndiaye fii ngay toll di ma joxoon nii di ak man ba mel ne bu ma mu neex ah. yow. yow sant yàlla ba ñëwuma ak sama garde yi ñu accompagner ma. yan garde samay garde corps. yow Ndeye Ndiaye ba xam nga ne sa poste bi du continuer. ah waaye yow Ndeye Ndiaye yow pour lan yow ñu njëkk la yow ci mouvement bi njëkk la ci affaire yi yow ngay xëy suba naan yow da ñuy bëgg a jiite doo doon sama président du ma ko nangu. du ma ko nangu tey du ma ko nangu suba ah. damaa bëgg nga def ko ci sa bopp pour lan. may wax nga ne dangaa woote sa mitin noonu ci biir kër gi xaw ma loo woote noonu di jaay jomba ñaaw noonu ñuy wax ngay tëb ak a jóg di yuuxu bii bu ndaw bi woon rek ah. bu mag bi ci buntu kër gi laa koy nit ñi ñëw kaari gaare lu ne gaare boobu lancement bi la bu ba nga mag bi nag grand théâtre la xanaa man asu boobaa da ngay gaañu ah yow na la lay xam nga ne loolu du ma xaar lu tax ndey damaa bokkul dinaa la fakkastal yàqal la ba nga xam ne bi doo ko doon yow Ndeye Ndiaye ku la nga bëgg ñoo ci bi yow ñun ñoo la ci koñ bi ñaata at ñun ñoo ngi ci sa yaay dem na bene sa yaay dem na lu ne sa yaay eh. ma ah, amoo amoo adresse fixe kenn xamul foo dëkk Ah, je vous permets je vous la ah, en tout ko xamee woon marché sa yoon nekku ci laa la wax ah, léegi yow nga xëy suba rek nag jamet suñu kaw ne aha léegi daal seen mouvement koñ man maa koy redressé man maa doon présidente duñ ko nangu mais yow sa yoon nekku ci ko nangu ndax loolu vote la woon vote la woon vote dañ laa sàccal nday mais da ngaa ko nday xam naa da nga leen a ko am problème mais xam naa sa jikko man nit ñee ma woo maa la yar de ñoo ma woo ma xamee sa nii laa la xamee de déggoo nii laa la xamee présidente maa ko doon tey waaw doo ko doon nag bu gën bu gën a ngand bi baaba bu gën a ngand bi bu ma ko doonee xanaa yaa xadi baaba da ngeen àndandoo xaru dugg ci bu gën a ngand bi nag palais de la république man fii sama vision man maa ngi feneen man feneen moo ne sama xel fi mu toll nii yéen de dinaa leen dëbbate ba ngeen moxta doo leen koy doo palais da nga neex yow réew maa ngi toj ak su man autorité bi yëpp ak may woo. dégg naa fi keroog ñëpp ku lay woo nga ne ko damaa ma ah. man na de nday ma ne duñ la jiite ñuy nga ma ko nangu. ay ana la xadi baaba. waaw xadi baaba xam nga xadi baaba yow. waaw moom laa ne waaw demal dem leen seen quoi na léegi te yow si kër gi di nga fi xataas. kanoo bi xat yow fii dinaa la yow nga fekk sama ne ma la fi tegal lu tax loo may tegal nag waxal tam ma da ngaa fàtte indien indi éthiopienne bi man la man ma indi éthiopienne bi nday booy wax ma lay dóor fii ma dam say tànk dam say loxo ba duutoo mën oh. euh, demati ci ah, politique bi xam nga mais da ngaa foog ne ma dama bàyyi sama bopp noonu ma man fi ma dugg war a ñage sama uyee bul laal damaa takk tul dama lay reprise dama lay suuf de loo ma def du dugg damaa takk tul waaw wax ji jeex du jeex mais nday wax ji dafay jeex jeexul asu parrainage yi ñuy laaj parrainage yi dafa bari. mënuloo am parrainage yu toll noonu Ndeye Ndiaye amul. amu ko de amu ko de amu ko de. naa fu dugg naa fa. amu ko de. ku ma dugg mun la am naa ko may. waaw léegi lenn la ñuy def dañuy dañuy def benn stratégie la ñuy def. waaw léegi lenn am na c'est que mu amul ay nit. caam xam nga di ngay def man xam naa ni may def dinaa dugg ci koñ bi su ma duggoo ci koñ bi képp ko am carte man damay bind tur amul sa carte damay bind. tur yëpp jëru carte d' identité tur yëpp bind. dugg ci koñ bi yi. nañ jël jiw. waaw falsifié benn carte d'identité numéro carte d'identité rek. waaw def indil ko lu mat liste bu bari ne ko mi ngi nii. dëgg la ñii ñëpp yow la ñuy woteel mu jox ñun li ñuy jox ñu dugal suñuy pos bu jour xew ma. waaw ñu dem voyager. du gis kenn man moom dinaa ko def def loo xamante ni. ndax dafa bëgg bëgg na bëgg goo xamante ni lii da cee xajalul kenn kenn kenn kenn man mosuma gis lu mel nii. bis bu parrainage bi génnee nag. moo xam. ban parrainage yi génn. bis bu génnee ñu ne Ndeye Ndiaye jëluñ ko moo xam. yow yow Ndeye ko jëlee tamit nga mais kenn du ko jël. yi mu yaakaar nga jël Ndeye Ndiaye yow. mais xalal man dem naa bii xëcc naa ay directeur de cabinet dama doon sóob. directeur de cabinet kii daal kii dafa mën a gañ kenn kii kan lay gañe. Ndeye Ndiaye bu gañee kenn man la gañe te man sa mënuma gañe. ma ne sama carte d'identité sax du ma ko jox. man du ma ko jox man ma jël sama carte d'identité jox ko kan. wootal ko wootal Ndeye Ndiaye man. man xanaa damaa xaru waaw waaye dama ne waaye damaa bëgg nga bañ yow dañu war xam ne ay xale dañu yor ci mbedd bi ni ah mais loo mais loo ci mën. ah loo ci mën réew mi doxee noonu. nañ ci taxaw ji suñu proposition di ci dox di ci wax nañ ko ko gën a bëgg ñun ndax xam nga booy politique bu la ko nit gën a bëgg da nga naan gëm na ma man mbootaay ci jaxaaw dinaa fa dem wax leen ko mbootaay ci capong gi dinaa fa dugg wax leen ko mbootaay ci instant jàmm gën du ma bàyyi benn mbootaay fu ma dugg na xoolal man boo dikkee baax na boo dikkul baax na man na nga bëri sa tur rek. yàlla dafa def ni politique man ànduma cee kenn man xam nga kan la àndal kii man ab transhumant laa waaw man je transhume de parti en parti te du ma opposition nag man pouvoir laay liggéey mooy la ma ku jëkk politique yi loolu du ma dem du ma du ma dugg opposition laa wax man pouvoir laay àndal Ah. man ki fi nekk président ci man kooku laay faral kon nga am man du ma faral keneen opposition la xaw ko wax ah. lu leer ah borom réew lay bàyyi si ginnaaw ma la de am naa ful la man kenn du ma fonto man ci politique ma man je suis mûr en politique koom laay wut xaalis laay wut jeex na tàkk dëgg la maa maa ngi dem waaw incha allah mu ne gis nga caam mii caam gën a seytaane ci àdduna moom moom moom gis nga ni mu tegeeg man dil nii attan na ko jël ba dem tegeeg ak moom dil wala mu woo Ndeye Ndiaye wax ko li mu koy wax su ko defee dil bi yàqu man du ma ci boole benn sama aw ma ci benn am complexe sama affaire bi moom naa ko gérer xaalis moom dina tegu sama loxo bi moo ni ala yaa bërongu laay wooy booy ala yaa bërongu yi ay Mhm. Comment tu vas Ça va et toi mmh, Tu sens bon Merci, comme toi aussi. Je sens très bon. Comme toi Voilà. J'ai l'air contente, joviale. Tu trouves Ouais, comme toujours. Tu as toujours été comme ça. <laughs> da ngaa mën a dóor ay marto leer na ma am nga loo bëgg. non ça fait plaisir de se réveiller comme ça le matin de voir sa sa femme toute rayonnante. Mmh. tu as toujours été étincelante étourdissante resplendissante kenn du yow. lan moo xew. nopp la. jackpot. oui. ah c'est qui le jackpot. Hmm. c'est ma deuxième femme. <laughs> la belle la plus belle de tout ce qui est belle. en fait je t'adore parce que quand tu marches je sens de tes pas malgré les sourcils qu'ils cachent. Avec toi, je sais qu'une nouvelle vie commence toute pleine de romances. Pour nos belles vacances, j'ai confiance. Allons ouvrir la boîte à chance. Bébé Oui. Ça va, amoo fièvre. dara dal la. réew mi naqari naa naqari naa galaa de réew mi. amoo ah, fièvre réew mi quand tu réew mi boo galaa problème am. ah ah. on dirait que man j'ai pas l'habitude de faire ça. tu n'as pas l'habitude. ah nan waxante dëgg bu fekkee ne dëgg rek neex mm-hmm. yàlla lii rarement laa koy gis ci yow moo tax ma xam ne yaakaar dafa am lu xew lan moo xew. ça <laughs> am na loo bëgg. bëgguma dara à parte te poser une question. laquelle? tu penses que je remplis mes devoirs de mari? je veux juste savoir ba xam amul lenn loo ma jàppal loo xam ni man war naa ko def defuma ko. sa côté wala lu ma la def la metti wala dara est-ce que jëkkër laa bi gën ci jëkkër yi dis-moi nag rek sincère d'accord. tu la vérité. c'est vrai que tu un bon mari. jigéen bu nekk jëkkër bu mel ne yow lay ñaan yàlla parce que góor bu baax nga. góor bu am yërmande nga. góor bu am sutura nga. Hmm. góor bu mën a suturaal jigéen nga góor bu mën a teral jigéen nga. loolu. waaw loolu moom lépp mu ngi ci yow. Eh, yow xam nga ah, waaw. <laughs> mais xam nga dafa am loo xamante ne dafa des parce que li may wax nii loolu sa jikko la ci yow la nekk jetewu ma la fleur waxuma ko pour bëgg lu la neex mais bébé pour te dire la vérité et pour être franche avec toi fois dama naan. est-ce que bëgg nga ma parce que damay gis enthousiasme bi ngay àndal boo dee dem ci néegu kinne boo dee boo dee ñëw ci man dafay mel ne comme si que dañ lay forcer wala comme si que aaye bi ngay aaye ci man neexula la wala dara moo tax gisoo man damay def lu tout pour remplir conditions yi nga xamante ne jabar daf ko war a defal jëkkëram uniquement pour te faire plaisir uniquement pour bëgg. bët yi ngay xoolee Kiné nga dima ko xoolee boo gisee nag ma tudd turu Kiné tudduma ko en tant que wujj mais exemple laay joxe parce que booy joxe booy wax dara da ngay joxe exemple ci lu gën a jege mais ni nga mel ak Kiné attachement bi nga am ak moom amoo ko ak man te bu c'est vrai que sëy neex na nga nekk ak nit ku la respecté parce que xam naa ni ko ci me respectes beaucoup mais des fois jigéen bu nekk da ngay soxla attention jigéen da ngay soxla douceur tendresse da ngay soxla ku la chouchouter di la câliner te loolu yëpp doo ko def ak man loolu daal laa lay reprocher en tant que mari mais bu dee yeneen condition yëpp moom yaa ngi koy yaa ngi koy matal li tax à chaque fois muy bëgg ñuy discuter parce que yàlla a l'autre qui que les plus grandes histoires naissent de grandes discussions qui se font dans d'élégantes demeures waxtaan dafa am solo. Et j'aime pas être parce que Hegel disait que la contradiction est le moteur de l'histoire. li nga wax lu am solo te lu ma nangu la j'accepte que peut-être au début transition bi metti na woon na trop parce que mën naa ko woowee noonu parce que ki ne laa xam am yu fi xew je je je me sentais égoïste parce que en fait ki dafa am fu ñu jaar mu am lu xew sa mariage am lu mu ko teg man je me disais à chaque fois que su ma yewoo sa néeg génn jàkkaarloog moom avec le sourire je suis en train de l'insulter quelque part parce que dafa am lu mu ñàkk te xëy na sama mariage ak yow moo ko xëy yàlla la c'est pas toi mais gis naa effort yi ngay def et ma mère aussi ak constaté. elle m'en a te bu dul dara sama doomu nijaay nga may sa doomu bàjjan yow sama jabar xàkkan nga yow su ma la téewul damay jóg su ma la téewul ku ma tée yàq naa ko dinaa la tée dinaa la yor duma la bëgg may dama lay nopp nobel gu neex nobel gu sincère parce que nag fan yi dama commencé flancher un parce que fan yi fan yi daal doy waar parce que fan yi tu es foudroyante. fan nga teg sa loxo foofu la parce que relation noonu la boo apprécier sa jabar ci benn côté gis ni mi ngi def ay effort te li muy def neex na la da ko koy wax mu bañ koo bàyyi li ngay def boo ko yokkul bul wàññi boo wàññi dem ndox ma. tu verras un sourire, mais pas un sourire de clown. Un sourire sérieux et su may ay ci parce que liy nekk sama biir lay extérioriser dama laa nag soo bëggee ma bëgg la yow tamit da may xam nga def dañuy abrégé aye bi damay defee fu bandi fu bandi aye fajar loo xewle. dix heures onze heures ci néeg bi laay ndekkee jógal. béy bu kay toog ma lève-toi. bu ma ngi ci jàmm waa d'accord dinaa fa yónnee kay adresse bi nga ma joxul woon Pikine waa ko ci derrière station bi waa dinaa fa yónnee wala man ma ñëw waa d'accord waa xala maa lay woowaat léegi allah ji dafa yegg si <laughs> maa lay waaw ça va ça ba maa ngi Pikine de ak Texaco <laughs> sama benn xarit laa doon waxal. Mhm. yow te yow def yenn saa yi fajar gi dangay ngay dem Dakar. waaw léegi xam nga lu ma bëggoon. Mhm. man daal damaa xoolaat daal yedd sans bopp. dama bëgg a bàyyi greffage bàyyi mèche sama karaw gi ma yar ko. yooyu yëpp dinaa aram. ah ku leen wax nag ngeen ni seer nga. mais ñàkkoon ñàkkoon diw bopp bu baax. ah, ah? ah da am diw bu baax léegi. dafa am sama xarit bu nekk Pikine. karité bii lay jël def ci ay mélange yaa ngi dégg lépp luy karaw bu dagg. karaw buy ruus karaw bu mënta bu dëgër boo ko ci diwee même pas quinze jours hmm. sa karaw gi naay wàcc mel nu ko neex loolu lu ko gën waaw crème capillaire yu baax la am ah même yow mii sax soo bëggee sa sikkim bi gudd ah. boo ko ci diwee day wàcc mais noonu loolu loolu loolu loolu kay ça lool la léegi nag. après nga jox ma adresse bi adresse bi adresse bi Pikine la. Mhm. ci station bi. xam naa Texaco. xam nga fa xam naa bi ngay jël. numéro defe naa ah naa ko de 78. 122. 93 47. ah waaw. ok c'est bon waaw bàyyi ki ne madame lay. c'est bon waaw ba dimbali ma ma diw bi nag. Ah, boobu daal bëgg nga ma dox ko. waaw lii ma bëgg dama bëgg nga def ko. baa jaama loo bëgg ma ah, ah. li ma dégg damaa neexu. li nga def neexuma ni nga comporté woon neexuma. Ah. nit du jël yëfam di sànni fee. yow yaa ngi day njaay mburu soow ngeen lu mu nekk danga ca war a dee kenn wurula caa jiitu lan moo tax nga naan bokku maag ba ñu maag lu tax ñu fa loolu du sa wax loolu du sa wax yaa ngi dégg loolu du yoon da war a topp ci ginnaawam jàppale ko lan da ngay topp ci ginnaawam jàppale ko loolu la. ba duma ko def Ndeye Ndiaye du ko jàppale Ndeye Ndiaye mënut a mujj ci biir kër gi yaa ngi dégg mujj ci koñ bi ñuy xëy suba di fal ay mbir di ko fal ndey Ndiaye man dama dul nekk ci ginnaaw Ndeye Ndiaye du ma ko def. du ma ko def bëgg naa lu la neex nag trop waaye duma ko def. Astou jàkka ja ñaata ak jumaa ja ñaata fa jàng alxuraan ñaata fa wàcc kaamil waaye noo def kenn jiitu ñu topp ci ginnaawam ña topp ñëpp imaam lañu. na imaam ba jiitu waaye kenn jiitu. mais duñu ay xale duñu ay xale man du ma nangu xale bu ndaw di ma jiite du ma ko def ba. jiitu nag dépendrul ci xale dépendrul ci mag li waaye di am ba jiite mbooloo ma maqaamu boobu moo koy sàkkul boppam. yaa ngi dégg man déglul non ma ni xam nga lu ma bëgg man bëgg naa teraanga ji bu mu la rëcc. ndax kër gi ci jiitu. Hmm. ndey mënul jot financement un milliard et quelque. ni jigéen ñee ci jiitu waa kër gi jiitu ngay ñàkk du ma nangu loolu dama ni da ngeen di àndaat juboo leen bu leen xuloo bay waxante lu ñaaw waaw un milliard et quelque jël na li su jigéen ñëpp kër ñi a lan kay damaa def fi dof rek xam nga xali baabaa ma bëggoon dugal waaye yow xam nga ne sax man Ndeye Ndiaye mënuma ma xamoon ne loxoom génn ci waaw man Ndeye damaa bañoon wax nga ne ma yaa ngi jiw yaa ngi dul turu jàmbur xamoon naa ne loxo xali baaba génn ci moo lay jaxase. moo ma ne woon bul dugg bul moom nag ma ngay xëy marché yori cantine mu yor xaalisam di denc banque. kon bu mu la xañ say teraanga. foofu la jóge moom ba ubbi kan boutique bu mag. fa la jóge ci financement yi ba ubbi boutique bu mag yow bu mu la ko xañ. baabay wuyu xit baabay bandi. a suuf nii. ma bu yow sax xam naa ne jigéen ak moroomam am nga kersa mais man dinaa ko gis woo leen jàmm ni ñooy ko am nga am. ndax loolu mën naa ne maa moom am nañ benn dagg-dagg bu sew. waaye de dama ni fii dagg-dagg bu rëy sax am na fi ñu suudewaat ko lépp. mu baax saal bi am nañ fa dagg bu na jeex ndax carité googu diw yooyu nga wax baax na ko ne dupp ba ca kaw mooy mooy Texaco. waaw numéro téléphone bi 78 122 93 47. jeex na jeex na wax naa euh, moom dafa am sax TikTok ki ne Babacar. léegi loo jàppoon ba ko d' accord d' accord waaw sama xarit la. <laughs> aju sikkim bi bu bu ñëwee. tuddee ma ko. ndaga bu yéen ci jàmm. très bien. keroog maa ngi fiy ñëw fekk wala fii. Ah, balaa fekk ak soxna Ndey. Mhm. voilà ñu defal ma proposition am lu ñu bëggoon ma defal leen ko. Mhm. voilà mooy pour problème mu. tournée bi ngeen war a def. waaw tournée bi ñu war a def waaw waaw. comme li ma leen ci expliqué woon. waaw tournée bi tournée politique bi waaw. Ah, ma ko dafa dafa laaj formation. Mm-hmm. du dëgg. Mm-hmm. mënoo tëb tëb rek di dox di dem di war di wër di wër nii rek. Mm-hmm. loolu sport koy def. à chaque fois bu campagne jeexee ñi dem hôpital la bari. Ah, campagne yi nii. Ah. saa yu ñu defee ba mu jeex. genn gu genn wàll gu bëri ñenn ñi dañuy AVC ñenn ñi dañuy dañuy amee problème cardiaque ñenn ñi dañuy dañuy lan moo ko waral du ñu def sport. waaw mënoo toog sa kër di tëdd ka naan suba ngoon guddeeg bëccëg nga xëy benn jour rek laa après léegi nga ne dem dugg ci sport. mu ngi mel ni nga toog. defoo dara ñu ne acca ñu dem marché nga toog 6 mois footballu ñu woo la rek nga dugg terrain boo paree looy am problème bi ji ngay amee sa tànk yi. Mhm. sa tànk yi sa yëpp day métti. élongation wala déchirure voilà mu ngi noonu. Mhm. ay déchirure yëpp da nga koy am. léegi nag pour cela que moo tax. Mhm. seen tournée bi ngeen def nii. dafa laaj ngeen def ci formation. waaw ñëpp ñëpp entraîné waaw dégguma dama ne ana politique ak sport da toog sa biir kër a génnoo kër gi politique ay dóoru marto yooyu laa ci xam man ay dóoru marto la foo am dara dóor ko fa eh, ba on s'était pas dit ça fii wax lu leer rek dama lay wax lu leer waxante ñu woon lii ba ñu toog di réunion ah. ma jël sama décision mhm. jàppale Ndeye Ndiaye ah. waxuma woon ni damay sport lu ma koy doyee mhm. damay sport ba toll nii et puis ban ma ñun mag lañu Eh, ay mag lañu eh, eh, lu ñuy sport. yow noo fi nekk mag te man ma ne fi. man mag lañu. yow ragal sport jar na lii sport dafa même bu dul woon di sax kii la nga ko war a sant sport dafa baax ci nit ki waxantuma la tournée nationale. nationale la wax de Sénégal gépp nga wër ko te doo entraîné da ngay dee dangay ngay xëy daanu. soo bëggee def tournée nationale ba oh, pare. xëy rek def ko nii boo xëy da ngay dese. waaw il faut waaw il faut ñu. formation bi defal nii méttiwul man li ma leen programme bi laa leen bëgg a indil war leen nan laa koy defee. Hmm. du loo xamante ni na fi métti boo xamante ni hmm. mën na la indil benn empêchement. parce que lii ma leen di tegal mooy programme bi nga xamante moom ngeen war a defee sport. wax ko mu dégg man programme voilà loolu nga ma waroon laaj da ngay bàyyi ba kii ba ah. pare ah voilà léegi dama bëgg mu <coughs> ngeen def rassemblement sept heures du matin comme ni ñu koy defee ratissage sensibilisation ngeen def. ay day am. waaw moom laa dama dégg nga naan rassemblement sept heures rassemblement sept heures du matin day am ratissage ratissage exemple ngay joxe ci sa bopp nga koy commencé mbedd mi dañ koy commencé for mbalit yi fi nekk bant yeeg mbuus yeeg yëpp def ko ci saak ba pare def mars mars bu nag soriwul bu ñu ñeexee def ko nii dem Morolan bu ñu demee ba Morolan n'est-ce pas nooto soriwul mën nañoo continuer ba nooto nooto mën nga fa dem mën nga may ma expliquer tris bu fekkee ne comme ci arrangé après nga def signe buñ demee ba nooto ñu dagg dem Tiwaan buñ demee Tiwaan dañuy génnaat nii njaxate njaasaan lañuy wàcc si ñëw ci kër gi toog après léegi bon bu fekkee ay ndékkee ngi fi ñu dem sangu après ñu ndékki après ñu daan xëy dem 18 heures ngir rassemble waat cëppi ci digg kër gi ba seen kii tàng appi avant du dëkk marche kanaara tuuti def deux pas en arrière rampe dox parce que am na dox bu demee ba ca biir ñuy campagne gay di teel ñi ngeen war a def mooy planqué wu lu planqué wu nu waaye def ba rëcc c'est kii kii kii li muy laaj ndax yow ànd nga ci wala àndu ci. déedéet man balaa ànd ak yooyu sax daa am lu jiitu est-ce que forcément que rek pour bu ñu campagne i faut ko ñu parce que circuit boobu kooku marathon yi ñoo koy ñoo ba mu wax. ñoo koy def. marathon te ñun duñu ay athlète. bokkuma sax ñun. yor campagne bi. waaw jigéen la. waaw kooku su doxee deux daanu. te yaa doom di naw. te yaa doom day nàmp. kon moom mën na xaar séance ngoon bi. kan mooy xaar lan ma ne moom mën na xaar bu ngoon bi mën na toog ci kër gi bu ngoon bi mu des ci kër gi waaw voilà léegi man mi nga xam ne nag may préparé programme bi yooyu mën mën naa leen a xaar fii ci kër gi non man moom man moom jarul ngeen xaar ma mhm. nga xam naa lii duma ci dem jàmm eh wuy ba yow yaay géant wu kër gi comprendre ma dama yaay géant wu kër gi exemple bi ci yow lañ ko mën a jëlee sport bi yaa ko doon triser. a ah, toog bañ naan sport la. sax sécurité bi ni woon moo ko gérer. voilà comme yàlla yaay gérer sécurité. Ah, rey sa bopp. waaw déedéet waaw sécurité. chef de foog nga am loo sa bopp xam nga lu muy def ah. téléphone su sonné nga jël téléphone wuyu. lan sécurité waaw. déedéet chef du ma sécurité. yow ngay aar chef de protocole laa. yow ngay aar moom. ah yaay aar yi mooy aar waaye yow nga aar mbir yi. léegi nga sa bopp bale. fekkee di circuit bi arrangé na sa bopp ku ma arrangé wu nañ ko toog waxtaane. waaw dañ ko waxtaane waaw. après ñu ok léegi man bu ngeen waxtaanee ba pare. xam ngeen. ba ñu revenir la après merci kon. merci Thiam waaye xam naa dinañ ko waxtaane daal. ok. yow kii moom mun naa rassemblement sept heures. xanaa ñun ay militaire lañ. kër gi ah? déet lii moom doo nga naan koy borom mbir mi nday njaay waxuñu ay borom kër. kuy directeur de campagne. moom indi na fi directeur campagne. benn waay. waaj ji xaw ma daa wér xaw ma wér fii la ñëw daal di di taasoo ko fecc nee na mooy directeur campagne. Eh, waxoon naa leen ko def leen ma directeur de campagne ngir dem jële benn waaye muy taasoo ko fecc. waa ji daal fii mu ñëwee dañuy dara ñuy xaar ma ni mu ñëw di tagge maam maamaati maam sax fàttewu ko lu ne dugg na ci loolu ne dugg na ci. mais est suñu campagne bi dina dem lii. ah dina dem dañ koy waxtaane ah nañ ko toog waxtaanee ah parce que kii ah. li mu wax moom. ab dof la de. non man expo yi sax amoon dama cee exanté woon moom am naa kayit yi moom damaa exanté woon xam naa mais daal nañ ko waxtaanee rek. xam nga waaw nañ ko waxtaanee. a nga damaa exanté woon di ci yenn kii yenn coono yi waaw.